merci monsieur le président monsieur le ministre je suis di nuyu monsieur le ministre je dama interpeller ci sujet ci carte d'identité yi Je euh, ci prédécesseur monsieur Ismaël Major Fall mu un problème sénégalais dans le sud du pays am consonance su noo yoo xam ne daal dina nekk mën na nekk Gambie mën na nekk Guinée Bissau mën na nekk Mali problème yi ñu amoon pour am carte te dañu leen di laaj carte euh, certificat nationalité. léegi sa prédécesseur ne woon na ma def nañu benn décret pour annuler loolu mais jusqu'à présent jotuñu ko ma bëggoon xam loolu fu mu toll parce que pendant ce temps suñu compatriotes yi ñu ngi rencontrer toujours difficulté boobu. léegi mo bëggoon la wax aussi comme man diaspora la dëkk rendez-vous yi pour am carte d'identité toujours ñun dañuy jaar sur une plateforme mais rendez-vous yi souvent day gudd gudd gudd euh waxna ko ministre des affaires étrangères accueil biñ lay défal ci consulat yi aussi souvent buñ la né 9h man nga 14h même fa la lay fekk té bo nekkee ci all bi nga yor liggéey jàmbur bu féké da nga jël matinée bi bu yëf ci démé ba après midi bi souvent ñu bëri dañuy abandonné. delluwaat moo tax sénégalais yu bari souvent même dañuy renoncer wuti kayitu sénégalais yi pour maintenir ça te loolu baaxul ndax ndaxte ku amatul kayitu sénégalais sañu doomu sénégalais yi nekk ci dëkk yooyu ñoom bu ñu màggee aussi duñu toppatoo kayit yi ndaxte duñ ko amati. léegi dis dis kii bi list électorale yi aussi laa bëggoon xam bi ñu defee ouverture des listes dernièrement nit ñi inscrire nañu. gis naa ne fii Sénégal ñu ngi wax nit ñi nañ dem ci sous préfecture yeeg yépp pour retirer seen i carte ñun nag nee nañ ñu carte yi janvier lay pare te loolu je trouve que ñun dañ ñu discriminer parce que ñii bu ñu jëlee seen i carte nii ñoom danañ mën parrainer seen i ñi ñu tànn pour candidat wu élection présidentielle mais ñun fee bu ñu koy jox dana fekk ne euh, parrainage jeex na lolu je trouve pas je trouve ça discriminant laajte nenañ ma carte yi dem na mais ken woowuñu de plus je sais par la loi que carte yi bu koy réceptionné dañu wara wo représentant leader yi et tout buñuy ubbi carte yi dañ ko wara gis ma ngi tok nag di xaar ba xam nu suñu consul di def légui man ma bëggoon leen proposer une chose xam nga Sénégal dañuy c'est vrai que lolo pour changer il faut toucher la constitution inscription carte euh, liste électorale est-ce que nous ko def quelque chose de permanent Nous avons def à longueur d'année bu élection jotee du fi am rëche nit ñëpp di bàyyi Ligue, liggéey di rang di buuxante di xeex pour ñu inscrire leen bu ngeen métier ci dëkk européen yooyu la ñuy def ñun dañ fa pour bëgg aussi le baax nous copier ko indi Sénégal. bu ngoon def une inscription permanente <laughs> désolé monsieur. le euh, président mooy gëna arranger. bien